maa ngi fas yéene yëkki ay kàddu kàddu cant la ak ngërëm rek ak ñaan di ñaanal xalifatul muslimin yàlla na ko yof yàlla bàyyi ak njabootu Seydina Limaamu yëpp gépp di ñaanal monsieur le maire Doune Pathé Mbeng ak Mamour mi nga xamante ni maire la mais ci quartier bi la bokk ak ñépp ñoo xamante ni ñoo leen di jàppale waaye di gërëm bu baax a baax waa UCG ak waa ah, waa FERA ci taxawaay bi mag bi nga xamante ni moom lañ taxaw tey ci bis bii gërëm également waa kër gu mag bu baax ndax commission bi Maguette sekk mooy président commission bi moo Tamsir ñoo ko yor ànd ka di ko doxal tey ñu koy waxtaane presque weeru yàlla ba tey jii ñu sotal ko et képp koo xamante ni jàpp na ci wala xalaatam rek ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm defal ko xéewal ñun nag dañuy gërëm meeru ka meeri Cambérène bu baax a baax a baax ci taxawaayam ndax kat bi ñu ñëwee léegi defagul at waaye gis ka quartier kër gu mag gis nanu seen bopp ci biir mairie bi bu baax a baax a baax ci seen taxawaay ci seen jàppandal ak seen dimbali ak lépp loo xamante ni kenn mënu ko sax wax ndax lu ñëpp bokk la waaye defal na ko Cambérène muy defal na ko quartier kër gu mag loo xamante ni ñun ñu ngi ciy kontaan bi baax a baax di gërëm monsieur le maire ak ñu koy jàppale bu baax a ak ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk si le terrain nga xamante ni buñ leen woowee rek ñoom ñu ñëw taxawunu li ñu bëgg ñu defal nu ko ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax ñu koy jàllale di wax ni monsieur le maire jërëjëf ci ñi nga xamante ni ñoom ngënu booleel ci terrain bi lu ñu soxla rek ñu defal nu ko waaye di wax seedee rek ni quartier kër gu mag bi comité de quartier bi nga xamante ni man maay jiite commission bi Njin Ndiaga Maguette Seck Seylaay euh, Tamsir ak euh, Abou Thiaw mi taxaw Libaas Samb laalaay ñoom nga xamante ni euh, ñi nu am ñooñu ñooy ñuy doxal Cambérène quartier kër mag ñi mu am ñooñu ñoo dugal seen loxo ci biir Cambérène di ko doxal guddi ak bëccëg kon sens la bu nu bu nu yàlla may ñu ànd kaak ñoom damay wax gars yi toujours ci région bi ni leen ñun bu nu toogee ñëpp ay délégué de quartier lañ bu ñuy dox ci mbedd mi ku dox na dox dox de délégué lu mu gis lu yàq wala baaxul na ko defar kër gu yëngu ku ko mën a réglé na ko dem réglé loolu ci loolu la nekk di seedeel monsieur le maire di ko wax ni que bi nu nekkee léegi ci neuf mois wala huit mois lay toll waaye dañuy wax ni presque ay dix-sept dix-huit vingt convocation police dafay ñëw mais gëm nañu ni ñaar rek ñoo ci dem police yi ci des yëpp waa conseil de quartier bi ñoo ko daje rek la ko ba jàmm am kon nag loolu ci lancé boobu ñun ci la ñuy continuer di ci dox kon di lancé kay wax wax kër gu mag ni defaral nañ leen kon li ci des ñun la suñuy jabar suñuy doom ñoo koy def ndax li quartier yi amul mooy avaloir yi benn quartier amu ko te monsieur le maire ak xale yi ko àndaloon di ko dox di ko wax ba mu sotti kon tey kenn jéggeetul géej kenn tuuratul géej kon ñun ñëpp nañu ko sàmmandoo téyandoo ko ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp kon loolu ñun suñu xol sedd na ñëpp ndax tey lii lañ ci bëggoon Maguette Seck mii di président commission bi xolam sedd na ndax aussi ñëpp xam nañu ni lu rafet lu baax rek la bëgg dina doxi rigueur nag mais lu baax lu rër mu ànd ak ak Tamsir ñu am aussi monsieur le maire ne aussi ñoo ñuy surveiller quartier ndax danaan àll ke du ñëwee moroomam àll ah kañ am na àll yu amul ñax kon ñun bu nu amee koo xam ñoo xamante jëlal nañu suñuy jarbaat suñuy doom pour ñu surveiller quartier bi sereet yi nangam ak nangam et eh, loolu dañ ci sant yàlla monsieur le maire ak ñoom membre yi nga xamante ne ñoo ko dox ba mu sotti kon daal monsieur le maire ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant et eh, du ñu jeexal te joxul sëriñ bi ndax dafa am taxawaay ci ñun xaalisam dooleem léppam da koy def quartier bi dafa am ñoo xamante ni chaque fin du mois dañuy jël seen xaalis dugal ci quartier bi ngin ndaw mareem male weer wu dee mu jël trente mille dugal ci kees vie mii Jóob mooy trésorier bi yor ko euh, barka démb rek ci set setel bi sëriñ bi génnee na xaalis bu bëri jox gaa yi pour nu jënd ndox ak lépp abu caw mi kon noonu la gars yi ànde ku feebar ñu taxaw kuy ngénte ñu taxaw ku am dëj ñu taxaw barke demb bi ñuy sàkk ci dëkk bi quartier kër gu mag li muy néew néew léew di huit ëtt la ñu génnee un million teg ci dëkk bi jox waa dëkk bi mm. kon mbooloo moo man loolu mbooloo moo man loolu Serigne Abo nga sànni ci ay kàddu rek laay wax waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbi alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al waa wal seydina muhammadin wa alihi wa sahbi wa ñu ngi ubbeekoo sunu turu boroom ci turu xalifatul am Seydina Mouhamadul Makhtar ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Mamadou ci turu ahlu bayti yëpp ñu ngi leen di jotal seen ngërëm ak seen nuyoo di leen wax ni rek taxawaay bi lañuy xaar ci Cambérène bu nee Cambérène nag lu matale la ay taxawaay rek la laaj te taxawaay boobu ñu ñëpp ñu ngi ci bu ñu ma fa gisee jàppaleen ni gis ngeen ñëpp ñi fi nekk rek ñoo fi nekkal ñi fi nekkul te bu ñu saxee ci li incha allah lay fa Cambérène tegu woon lépp na fa tegu ndax maire am na yéene ci dëkkam ndax dañu koy laaj dëkkam te am na ci wa saaxibul xaryati yusalu an xaali xaryatihi wa kayfa xadaa loolu la bay lay bind boroom dëkk nañ ko laaj dëkkam ak naka lañ ko téye woon ak ña ko ci doon dimbali kon bu ñu wàccee ci wax jooju rek fàttali li bay lay waxoon ñu ngi gërëm képp ku fi ne commencé si délégué de quartier ndax moom moo nekk suñu bopp ak Seydi Laay mi koy jàppale Tamsir duñu wax ci moom wax dëgg yàlla ñoom constant ci ci loolu la nekk toujours ñu ngi ci yitte ak patron sëñ Maguette di leen seedal rek ni lii bu amee dañ ci ànd ak jigéenu quartier bi yëpp loo leen fi gis ñu yëkkati ko jigéen ñi ak ñu ñoo ko ànd ñu ngi leen di gërëm si seen taxawaay di gàttal wax ji rek ndax bëgguñu wax wax ju bari di jël temps bi waaye di leen wax rek maire loo leen mën a jàpp seen quartier fii mooy vitrine dëkk bi bu baaxee rek li des day baax te sunu délégué de quartier diisul ku oyof la kuy wax ak ñëpp la te defe naa war nga ko mën a seede yow kon ñu ngi gàttal wax ji rek ci loolu di sant yàlla di leen ñaanal yàlla yal na yàlla suñu borom teg loxoom ci lépp lu ñu sumb yal na suñu borom teg loxoom ba li mu sumb mu sotti ci kàttanam jërëjëf laay jërëjëf. Libaas Athio la jeunesse mënu waaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabi alamin ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonentam bu tedd bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di ñaan yal yàlla fayal maam Baye Laye salaam ak mboolem saaba yi gàddaayoon diine di nuyu sunu xalifa sunu yaakaar tey ak ëllëg Seydina Mouhamadou Makhtar mu ambaale mboolem njabootu Baye Laye alayhi salaam di si jiital Seydina Laay kii taaw nekkal ko fii ci Cambérène di nuyu monsieur le maire ay nuyu tedd di ko jox wàccuwaayam ak yéeguwaayam di ko ñaanal yàlla saa borom bi defal ko ndam ci bépp jéego di nuyu baax son adjoint monsieur Mamour Ndiaye ak délégué municipal bi yëpp fi ñëw di nuyu bu baax vraiment délégué de quartier bi nga xamante ni sunu ndijaay la du chef Diène am taxawaay yaakaar naa ni comme ni ko sama tons waxe ka sama mën naa ne sama sama ndijaay mën naa ne sama grand abu ci kàddu yu rafet yi mu yëkki wax dëgg yàlla noonu la musa mel ci luy defar dëkk bi boo ko ci làmb di ko ci daj amul lu ñuy woote te doo ko ci gis nuyu présent environnement moom itam di seedal ni ku wàcc boppam la saa yu ma ñëwee danaan ma yow loo wax loolu la ñuy def te loolu du cër la ndax nit bu tabee ci tëram rek yaakaar naa xol bi moo yaatu Tamsir di ko jàppale ak laalaay ñi nga xamante ni ñoom ñaar comme ni nga waxee ñoom ay soldat nu bëgguñu sax ku leen di tudd vraiment tey nag yaakaar naa ni journée la boo xamante maire bi yàgg na ko am muy dynamique de quartier dynamique de quartier yooyu nga xamante ni weer bu jot ñu ñu ciblé benn quartier dem fa am fa taxawaay tey nag yàlla dogal nag wax dëgg yàlla muy quartier bu spécial di kër gu mag ku wax du kër gu mag nag wax dëgg yàlla nag fii comme ni ko Abu waxee fii mooy base bi daal ndax ñun nag yàlla dogal na ni ñun ñoo dëkkoog Roowala Issa ñun ñoo dëkkook jàkku maam sey naa issaa bi waaye kër gu mag yi résidence bi ñun ñoo ko dëkkoo kon nag taar ak lépp fii la war a du tàmbalee di wax nag tey li nu fi def activité bi na fi bañ a yem ndax programme la boo xamante ni yaakaar naa ni dafa war a gën a mën a yaatu ndax Cambérène xew-xew bu mun a am nit ñi bu dee 80 pour cent fii la nii dal kon nag war na mën a gën a yeesalaat mbir mi di ci wax ni soxla nañ ci jàppale maire bi comme ni mu ko yàgg a defee wax dëgg yàlla équipe bu Feera semaine bii passé la fi commencé ñëw UCG mi ngi nii géej nga xamante ni wax dëgg yàlla l'infatigable ñëw ànd ak équipe moo fi jiit ñëpp def taxawaay bu solo wax fa dëgg yàlla ndax lii rek la ñuy xaar ci ñoom ñu xam ne rek du programme la boo xamante ni tey dafa du tàmbali rek waaye semaine bi yëpp incha allah rabbi dinañ ko àggale di wax ni rek na ci ñëpp jàpp kenn ku ci nekk loo xalaat ni mën na defar nga taxaw ci bañ a xaar dara ndax délégué bi moom kese mënul liggéey quartier bi comme ni nu ko limee ñoom Seydou ñoom Ndiène Diaga gaa yëpp ngi ci wax fa dëgg yàlla di rafetlu nag liggéey bi di wax ni nag lii rek la xaar ci gars yi jeunesse bi ñoom itam ñu gën a mobiliser wu xam ne am na yeneen programme yoo xamante ni commune bi am na ko ak waa délégué de quartier kon nag ñu gën ci adhéré xam ni daal lu baax li ñoom li ñu bëgg ñun bu ñëwee dañu ci war a fekk kon nag maa ngi sensibiliser ñëpp surtout jigéen ñi ak ndaw ñi ñu gën a am taxawaay ci quartier bi rafet lu ne fii yelloo na ko bërëb bi maire nag di wax ne nag gars ñi ngi xaar aménagement bi ndax bokk na ci délégué fu mu jaar gars yi ne ko aménager nu suuf pont bi muy loo xamante ni wax dëgg yàlla Cambérène soxla na ko dëkk bi soxla na ko ci loo xamante ni tey day yokk taar bi ndax fii yaakaar naa ni li fi wàcc ci nit par dimance kenn xamul nu mu toll kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax di jégalu di ñaan rek yàlla nu yàlla gën a jàppale liggéey bi gën a dem ca kanam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërëjëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil anbiyaahi wal mursalin sayidina wa nabiyana muhammad sayidina imaam allahi almahdi alayhi salaatu wasalaam euh, dañuy tàmbali suñu kàddu di sant borom bi nga xam ni moo ñu may fekkee ak tal euh, di julli di sëlmal ci sang bu tedd bi démb ak tey seydina muhammad sayidina imaam allah sayidil awalina wal axirin di jël ay kàddu nuyoo ak ziyaara di ko teg si suñu sang abo mu jottalil ko xalif général des Layènes suñu sang Mouhamadou Makhtar Laye di ko ñaan ñaan ñaanal suñu borom defal ko wér defal ko gudd fan ba yéene yi bi mu am ci communauté bi yàlla defal ko di nuyu mboolem kilifa yi fi teew di wax ni délégué ñu ngi lay jaa jaajëfal mën naa jaar ci yow nuyu chef de village ak mboolem notable dëkk bi euh, di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen taxawaay di nuyu vraiment le conseil municipal bi nga xam ni le maire Mamour Ndiaye ak certains conseillers municipaux ànd nañ représenté mboolem commune bi di jaajëfal mboolem kilifa yi nga xam ni ñi euh, délégué may passer un message message bi jëm ci conseil de quartier bi conseil de quartier yi li tax ñu am ci yaakaar mooy bi ñu ñëwee def jàngat dañ ni kat suñ ko bëggee defar il faut quartier yi am taxawaay parce que dañ naan maire wala équipe municipale conseiller mais ñoo ñooñu mënuñu defar dëkk dëkk bi il faut ci gox-goxaat ruq bu nekk kenn ku nekk taxaw pour defar ko loolu rek la ñu mën a réussir mission bi nga xam ni bëgg nañ ko ci biir Cambérène moo tax ñu wax ak délégué yi ci ay daje yu bari ne leen nan taxawal nañu liggéey pour conseil de quartier yi taxaw su ko defee quartier boo dem am na ñu am taxawaay bu ñu taxawee lépp luy jafe-jafe. lépp lu jaaduwul ca quartier ba wax nga ko sànq délégué soxlawul sax des fois ñuy dem police wala gendarmerie mën nañ ko régler ci biir quartier yi mais rawatina Cambérène nga xam ni dëkku cosaan la dëkku diine la donc bari na ay pratiques ya nga xam ni soxlawul sax ñuy dem ci euh, à à des hauts niveaux pour réglé ko mën nañ ko régler ci biir quartier yi donc may jaajaat délégué yëpp ak personne ressource yi nga xam ne ñu ci biir quartier yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu dooleel conseil de quartier yooyu ànd ceeg délégué lépp luy taxawaay ñu mën ko matal donc message boobu délégué moom lañ bëggoon profito lancé ko di wax ni ñu ngi gërëm di sant ni ngeen taxawee conseil de quartier kër gu mag ndax ñëw ngeen ñu waxtaan ca bureau ba ca mairie ba mais tey jëmmal ngeen loolu bi bi ngeen waxtaaneek ak ñun ni ñu kat bëgg nañ le dimanche 20 ñu taxaw lu ñu leen wax doo leen ci weet commune bi dina ñëw accompagner leen yaakaar naa ni loolu matale nañ ko ICG bind nañ macha allah ñuy gërëm géej suñu frère mu ñëw indi taxawaayam Fera indi taxawaayam mbooleem ñi nga xam ni yëg nañ activité bi ñu ngi ñaan li sax donc délégué ak conseil de quartier bi ma leen wax suivi parce que bu ñu liggéeyee te amul suivi amaana liggéey bi du feeñ donc nañu am suivi su ko defee chaque quinze jours chaque un mois ñu ànd ak yéen accompagner leen quartier kër gu mag Libaas wax na ko sànq. bu ma doon wax capitalu Cambérène capitalu diine Cambérène dama naan mooy kër gu mag ndax moom mooy cosaan bi lépp li wër jàkka ji daanaka moo doon Cambérène donc quartier kër gu mag moo war a dem référence bi donc moo tax ñu ngi leen di jaajaat ci wàllu woowu libaas jeunes yi jigéen ñi nañu taxaw góor ñi ñi nga xam ne am nañ baat nañu taxaw jàppale délégué ci li nga xam ni moom mooy defar quartier bi beneen message bi nga xam ni moom laa bëgg a terminer mooy aménagement suufu bi depuis ñu ñëw bind nañ ay correspondance daje nañ ak DG Ageroute comité de suivi bi bokk na ci li nga xam ni bindoon nañ ko ba d'accord doon ak Ageroute ci ñu defar ko mais message bi may lancé mooy ñun dootuñu xaar sax Ageroute monsieur le maire je pense que sous témoin on peu déjà di année bi nga xam ni mooy dugg ñu proposer le conseil municipal un projet d'aménagement suufu pont bi su ko defee dinañ continuer dox ak Ageroute engagement yi mu jëloon jàppale ñu comme ni ñu ko defee ci suufu pont wu Sénégal yëpp ñu def ko fii mais ñun di leen jël engagement personnel bu Ageroute ñëwul ñu defar ko suñu bopp ndax comme ni ma ko waxee sànq ñun Cambérène xaaruñu état waruñu xaar état li nga xam ni mënal nañ ko suñu bopp dañ ko war a taxawee donc loolu message la information bu may joxe la mais di wax ni vraiment ñu ngi tàllal loxo mbooleem Cambérène dëkk bi li koy defar du la monsieur le maire du équipe mais ku nekk fa nga ne boo amee taxawaay la gëm naa ni dëkk bi dañ ko yóbbu fa mu nekkoon concept bi ñuy wax Cambérène bu yees du Cambérène bu bees dañuy yeesal li ñuy yeesal mooy lan li Seydina Issa Rouhou Laye taxawe woon ba Cambérène ràññeeku ci biir àdduna loolu vision boobu naa Issa amoon ñun dina ci leen bëgg a inspiré wu inspiré ci mboolem Cambérène te loolu yaakaar naa ni mi ngi am ay jéego ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lépp lu ñu naal ensemble yàlla mottali ko ñu am ci lu ëpp suñ njort lu message boobu laa bëggoon lancé di profité di wax ni aussi am na ay programme de reboisement mm. waxtaan nañ ci ak ñoom libaas laalaay ànd nan ak Océanium muy euh, benn ONG ànd ceeg ministère de l'environnement ak eaux et bëgg nañ ci ay fan yu néew ñu am ay programme de reboisement yu am solo fu mu jógee fii Cambérène 2 laa jëm ci wàllu woowu su ko defee Cambérène nekk une ville verte ville bi nga xam ni moom la Seydina Issa rêvé mais moom la Cambérénois yëpp rêvé yàlla nañu ko yàlla defal ci baaxu bàyyi laay war may Seydina Issa roolaay jërëjëf